kuy bind sa bopp kenn du la dàq boo leen sañoon ngeen maintenir seen bloc l'effritement du bloc c'est des voix mois moins. moo tax moo tax nag. moo tax ñu ubbeeku c'est des voix en moins ñu ubbeeku ñu ubbeeku di si ñeneen. autant nit ngeen ngeen maa ngi dégg nga naan. xam nga naan yéen a ngi en négociation. avec des loolu moom. politique da ngay politique yéen a ngi nekk en négociation avec avec Abdoulaye benn jour dañ koy mosoon wax ni ñu ñëw ne ko diw bàyyi na mu am na keneen ku dugg c'est ça la politique c'est comme un train gaar bu nekk dana am ku wàcc am ñu yéeg li ngay ñaan yàlla nag mooy clients yi nañu nañu nañu ëpp ñu wàcc. loolu mu ci am solo te te bi bii ñu wane nii parrainage bi ñuy def nii wane na ni que nous restons la force. ultra majorité dans ce pays et qui sera confirmé le 25 février. votre le chiffre que vous avez avancé est fortement contesté. mais mais lan la yow même lan lañ contesté wu fii ci Sénégal. Ah? xam nga li ci am solo contestation bi ñu ngi koy apprécier juge bi ci urne le 25 février. moo tax ku nekk ci ñun yaa ngi sàmm li nga xam ne annoncé nga ko ci sa base politique d'abord parce que di responsable nag balaa ngaa res dara mooy mooy ci sa base. ak loo mën ta wax ni man représenté naa fii sa base bi nga dëkk sa bureau de vote bi nga nekk sa centre de vote bi nga nekk li nga wax ci naa na nga ko ci fekk loolu mooy liggéey bi fii ba 25 février ñun naka la ñuy def ba encadré képp kuñ parrainé loo pour mu voter le président Amadou Ba loolu mooy liggéey bi